Assalamu Mboki mbokki Assalamu alaikum mbokki Sénégal alaikum mbokki diaspora intercoalition walu Yewi Askan de caajaay ñom ñoo ñëwoon après les élections pour waxtaan ak askanu rawatina askanu aduna. intercoalition bi nag am wàllu am Pastef am taxawu Sénégal am PRP am PUR ñooñu nekk tamit ay ndaw ñoo nekkoon sur le terrain ci élection législative yi passé ngir jàmmarloo ak nguur gi fi nekkoon bëggoon a wàññi dooleem te yàlla may ñu ci ndam tey gii dafa am solo ñu taxaw jàkkarloo ak population Caajaay segam ba yàlla dogalee ñu dugg ci élection yi ci jàmm ba génn ci tamit ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla dogadoon ñu am une intercoalition bu dynamique Medoune wax na ko fi léegi intercoalition la bo xamantene ni au niveau national lañ ko yalla yalla dogal nak ci commune Thiadiaye responsabilité yu parti yooyu yep am ñu leen fi taxawal bo démé ci walu Serigne Modou mo ngi fi bokku ci PDS bo démé ci parti passif aussi ñu bari ñu ngi fi teewal leen am na ñoo xamante ne nii dañu am gàllankoor mënuñ fee ñëw PRP bu Déthié Fall ñu bari ñu ngi fi taxawu senegal tamit ay représentants ñu ngi fi nii ñu ko taxawalee ci point de presse bi noonu lañ ko taxawale woon ci campagne électorale fii ci Caajaay mu doonoon campagne bu yombutoon ci ñun parce que ku xam élection xam ne campagne dafa ànd ak xaalis nekkul nag xaalis bu ñuy maye parce que ñun moom dañu am benn principe politique boo xam ne moom la ñuy gëmal nit ñi nga xam ne nii dañ dëkk ci biir réew mi rawatina fii ci caajaay waaye dafa am le minimum loo xamante ne nii daf ko laaj parce que ku bëgg campagne di nga am essence ci ay oto ku bëgg a campagne tamit di nga yori oto ku bëgg a campagne di nga yor ay tiset ku bëgg a campagne di nga am ay flyers wala ay spécimens loolu yëpp doon loo xamante ne nii xaalis la laaj te ku xam opposition xam ne opposition bi yoruñu xaalis waaye gàcce ngàllaama responsable yi nekk caajaay man personnellement dama leen di féliciter dama len di féliciter parce que yemalewuñu woon campagne bi ci dox ci kër yi di proximité mais dañ ci bolé di dugal sen loxo seeni poste di génné xaalis ngir que ñu mëna def campagne bobu nonu ci nu muccu ayib ba yalla dogal na avec nos maigres moyens commencé nañ campagne bi lepp lu soxla woon def nañ ko fep fum mu tamit egg nañ fa ñu ciy sant suñ borom di sant également esprit de maturité bi nga xamante ne nii responsable yi boole coalition bi wala l'intercoalition am nañ ko ba mën a ànd def seen campagne ba élection jot ñu def ko am ci nag une fierté une grande fierté parce que tey gii li tax ma ne fierté dafa am loo xamante ne nii boo ci biir kër yi mënoo ko xam yalla dogal suñ priorité nekkoon ñu dugg ci biir kër yi pour xam la fa nek waye également pour wax leen programme intercoalition bi lan la ci nonu lañ xamé né Sénégal rawatina fi ci Caajaay une mutation bu considérable dafa am vers de l'opposition loolu don que xamantene ni bagn c'est que les élection ya tamit daf ci ci parce que ku xam ay élection caajaay ni mi depuis 2012 ba léegi xam na c'est la première fois dans l'histoire politique de caajaay opposition di Benno Bokk yaakar mënul atteindre la barre des 50 loolu nak duma ci féliciter sax l'intercoalition déedéet xam nga ñan lay féliciter c'est la population thiadiayoise ñom lay gàcce ngàllaama li tax moy population bi rawatina la jeunesse dafa donne une jeunesse très mature une population très avertie fim tolni lu bari da ngay foog ne ñoom xamuñu ko waaye boo duggee ci seen kër yi toog ci seen saal yi waxtaan ak ñoom di nga xam ne ñii kenn gënu leen yeewu te kenn mënatu leen nax loolu moo waral malgré puissance de l'opposition en termes financiers wala en terme logistique wala leneen lu mën di campagner malgré tout ça man ak samay morom, ak ñom ci seen bop xam nañ ne dañoo perte élection yi fii ci Caajaay loolu moom kenn du ko naatable élection am Benno Bokk Yaakaar di am 48 pour cent à Caajaay c'est la première fois dans l'histoire électorale loolu noonu war a doon message boo xamante ne nii dañ ci jàngee que ce soit waa Benno Bokk ou war nañ ci tirer leçon mais également l'intercoalition Walu Yewi de Thiadiaye war na ci tirer leçon bi ci Benno Bokk ou war a tirer dama leen koy bàyyee ñoom ñu xalaat ci seen wareef la waaye bi nga intercoalition Walu Yewi, liñ tire, tirer mooy dañ am jàngat ne Thiadiaye def ñu soxla premièrement li ngeen war a gën a comprendre fi ñu toll nii mooy caajaay soxla na l'intercoalition Yewwi Wàllu de caajaay soxla na leen parce que xam na ne doxalin ci biir caajaay am na kóolute ne intercoalition bi mën na cee indi doxalin bu bari pour changement am ci jàngat beneen biñ ci war a jëlee mooy population bu caajaay commencé na xam ne doxalinu gouvernement bi doxalinu waa Bennoo Bokk Yaakaar dafa wone ne lu jeex la te nag li ma doon wax rekk ci campagne bi lay rappelé waat ab réew jeunesse moo ko yor jeunesse dafa doon lu am solo processus de développement d'un pays elle est la locomotive jeune mon mot le pouvoir contradictoire avec l'État pour une bonne gestion Yalla y dogal nané fille à amnañ une jeunesse avertie une jeunesse mature

boudé dañuy def jangat bu sincère buñ togué ak seeni responsable war nañ leen xamal né fi tollu ni à c'est l'opposition qui est la première force politique may jéxalé nak di leen remercier di remercier population bi ci maturité bobu di remercier population bi ci prise de conscience biñ def parce que lu am solo la population tok nous ne réew mi ñun rek ñoo ko mën considérer ces carte bañ ko avec personnalité parce que élection yi campagne nañ ci jàmm dem nañ ji également ci jàmm benn problème amul résultat yi ñu satisfaction totale donc loolu ñu ngi koy population di leen xamal day élection yi mo doga tambali tàmbali mën naa wax ne mo tambali suñuy and parce que dinañ fi taxaw taxawaayu opposition dinañ fi taxaw di veiller sur la gestion de notre commune di alerter également ci lépp loo xamante ne nii lu waroon dox la ci biir caajaay te doxut l'intercoalition yeewu wàllu bii pare na pour ànd ak yéen ci dynamique boobu ngir li ñu bokk ñu mën ñun ñëpp ci commune euh, au nom de la coalition Wallu et Yewi, qui sont chacune représentée ici par les membres des différents partis politiques ici présents. La coalition Yewi Wallou voulait organiser tout simplement un point de presse pour faire le bilan de la campagne des élections passées, des élections législatives euh, qui ont eu lieu euh, le 31 juillet passé. Donc, on a jugé utile de faire ce point de presse pour euh, faire tirer un résumé du bilan, mais également pour remercier toutes les Tchadjaïoises et Tchadjaïois qui nous ont accompagnés pendant cette longue, ces 21 jours. Ce qui, nous a valu également les résultats très probants qu'on a eus lors des élections, avec plus de 1400 voix, soit un pourcentage de 30% pour la coalition Yewi Walou, ce qui est une première depuis, euh, ce qui est une première depuis euh, que les élections sont organisées. Donc, on va faire également un bilan du scrutin, un bilan sans complaisant également des résultats du scrutin, du scrutin passé. Donc, on a battu euh, une campagne pendant les 21 jours. Nous avons fait le tour de tous les villages environnants. Nous avons fait également le tour de tous les quartiers de Tchadjaï. Nous avons fait également des porte-à-porte portes à portes. porte à porte et des visites de proximité malgré nos maigres moyens. Mais comme on dit, quand on a les moyens, on organise. Quand on n'a pas les moyens, on s'organise. Et je pense que nous nous sommes très bien s'organiser et les résultats le prouvent. Nous avons également l'honneur de recevoir des caravanes ici au niveau local une première caravane avec la coalition Wallou, représentée ici par notre frère Maudou Nous avons eu également l'honneur de recevoir la caravane de Yewi, à, la tête le président Ousmane Sonko. Ça a été également un grand honneur euh, de voir tous les Tchayayoua sortir massivement, n'est-ce pas, l'accueillir euh, et également l'encourager dans le combat qu'il mène pour l'entrée du Sénégal et pour l'entrée également des Sénégalais. Toujours avec les caravanes, on a, fait, euh, on a accueilli également la caravane départementale avec la tête de liste euh, Mamadou Lamine JT. sous la pluie, une jeunesse engagée, n'est-ce pas, était sortie l'accueillir et on a sillonné les rues et les coin, n'est-ce pas, de Tchadjaï pour sensibiliser, n'est-ce pas, convaincre et discuter avec la population. Donc, on a également organisé, toujours dans la campagne, un thé débat, là-bas au quartier Renaissance, toujours chez notre frère Modou, Modou pour sensibiliser également les populations, comme on l'a fait également dans d'autres quartiers de Tchadjaï. Toujours dans la dynamique de sensibilisation, n'est-ce pas, et également d'informations pour la population. Nous sommes également rendus également au, euh, village Fouch un vendredi, je pense c'était le dernier vendredi avant les élections, pour discuter également avec euh, les populations de Fouch pour les convaincre, pour également les sensibiliser de voter utile et de, voter pour la coalition Yewi Askanui. Donc on peut dire en résumé que notre objectif a été atteint grâce à Dieu, mais aussi grâce à une jeunesse, à des hommes et des femmes engagés, motivés, dévoués pour la bonne cause qui est de vaincre, n'est-ce pas, et de bouter Benno Bokoyakar hors du territoire, hors du Sénégal. Donc, on peut dire que notre objectif a été atteint largement. Et nous rendons grâce également à Dieu. Si maintenant cet objectif a été atteint, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes debout, comme un seul homme ou bien comme une seule femme, comme disait l'autre, pour la bonne cause et pour le développement du Sénégal. Donc, nous remercions tous les partis, n'est-ce pas, que compose l'intercoalition, tous les partis qui sont dans la coalition Wallou, mais également tous les partis qui sont dans la coalition Yewi. C'est une coalition saine, c'est une coalition composée d'honnêtes hommes et de femmes, d'honnêtes hommes, n'est-ce pas, et de femmes, des hommes et de femmes qui sont intègres et qui sont engagés pour la bonne cause. Donc, la coalition continue dans l'union et dans une dynamique de combat pour un Sénégal nouveau. Nous tenons donc à remercier la population tchayayoise d'avoir été attractive à notre message, qui était le message du changement. Les Sénégalais en ont marre. On l'a montré lors des locales, on l'a montré davantage lors des législatives. Nous allons également le montrer avec les prochaines séances, à savoir la présidentielle de 2024. Donc, nous ne remercions jamais assez cette population tchayayoise, n'est-ce pas, qui ont été attractives, je l'ai dit, et qui ont également compris le sens de notre message, le sens également de notre engagement et le sens également de notre lutte qui est pour un Sénégal nouveau, un Sénégal de tous et pour tous. Donc, nous vous donnons également rendez-vous, n'est-ce pas, dans l'union et également dans une dynamique également de regrouper toutes les forces vives de l'opposition. Wallou et Yévi ouvrent ses portes également aux autres partis politiques ou mouvements également citoyens, à savoir les serviteurs, que nous remercions au passage, à savoir également Art Sénégal et également d'autres également partis qui étaient, nest pas, qui avaient participé également aux élections passées. Donc nos portes sont grandement ouvertes pour une large coalition avec les prochaines séances. La coalition Yewi Wallou, n'est-ce pas, demande un resserrement des rangs pour les combats futurs, en vous disant que seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Donc nous remercions également la presse par la voix de Morisco d'avoir couvert notre point de presse. Donc, Morisco, vous avez tous nos remerciements. Nous remercions également toutes les personnes ici présentes pour assister à ce point de presse. Nous remercions également les personnes qui auraient voulu assister à ce point de presse, mais pour des raisons évidentes, ils n'ont pas pu assister. Donc, nous vous remercions, Tchadjaïwaz, Tchadjaïwa. Nous vous tendons notre main en vous disant que l'avenir devient meilleur avec nous. Venez travailler dans la coalition Yewi Wallo pour un Sénégal nouveau. Venez travailler dans la coalition Yewi Wallo pour un Tchadjaï meilleur avec les prochaines séances. Je vous remercie.